man maa ngi tudd Assane Mbaye euh, di secretaire général association de marchés département de Pikine muy AMADEP ñu teew fi ci kuréel goo xamante ni diggante Pikine la ak Géejawaay Kër Massar ak Tëngéej ñoo daje fii te département yooyu ma tudd bu ci ne nit jóge na fa représenté leen ñëw teew si fii. représenté commerçant yi. yi ak commerçante yi. daja tey bi nag su ngeen gisee ñu woote ko fii ci seesu Pikine euh, li tax ñu woote ko mooy dañuy ay citoyen di ay commerçant yu fi daje ak ay commerçante 365 jours yi ñaari bis lañ ci dul fay suñu taxe muy tabaski corse mais 363 jours chaque jour ka jëfee ñu fay taxe municipale te réew l'argent contribuable moo koy doxal kon lu ñuy def ci commerce wala ñu di ko ci wax rek dañu cee war boole te li ëpp ci commerce bi ñun ñoo ko boot ndax ñun ñooy délégué de marché yi te marché bu ne lu gàtt gàtt ñetti junni nanga ñetti junni nit ak nanga ma fay xëy di fa gont euh, kon suñu demee ba nga xamante ni gouvernement bees taxaw na ministre du commerce bu bees taxaw premier ministre am président de la république ñu koy sant di ko ndokkeel di ko ñaanal saa borom jàppale ko ci yéene bi mu am si Sénégal yi pour wàññi prix yi ak location bi mu am ci ndam ndax ndamam ci loolu mooy suñu ndam ndax ñun ñoo dëkk ci kër yi ñooy dem ci marché yi euh, su nee dafa bëgg a wàññi prix daare yi dañ ci ànd ak moom ñun délégué des marchés yi à 100 pour cent waaye nag démarché bi nga xamante ni keroog bi ñuy toog loolu lañ jël lañ àndul ñun ndax nit ki doo wax ci palaasam te muy dund wala ngay dox ci palaasam te muy dund. li woo commerçant yi ak commerçante yi ak grossistes yi ak association de consommateurs yi ba ci association de des mar euh, imam yi waroon na woo association délégué des marchés yi ñu toog ndax jigéen ñi bu ñuy dem marché du ñu jëlee si woo du ñu dem ci magasin bi. wala ñu dem ci bitig bi bu ñu jëlee seeni siwo ci bi marché yi la ñu dem fa la ñu jënd ceeb jënd diwlin jënd suukar jënd jën ak leneen ak leneen kon bu jigéen ñi naan marché bi dafa naqari doo dégg ñu ne la magasin bi dafa naqari wala bitig bi dafa naqari marché bi dafa naqari la ñu wax te commerçant ak commerçante bi nekk ci marché bi ci grossiste bi lay dem di jënd ji kon su fekkee dañu toog dégg ñu ne dañuy wàññi piri yi ñu toogaat ba yàgg ñu dégg ñu ne état bi nee na dina recruter 1000 jeunes auprès du ministre du commerce pour ñu wër ci marché yi euh, dugg di wàññi prix yi wala ko fi wàññiwul ñu signaler la loolu suñ ko defee li ma jàpp mooy suñ duggee ci marché yi mal entendu dina am suñu diggante ak ñoom te nañ ko def yoo gis nañ ko waxu ko njëkk ñuy jël kàddu ci suñu tur kilifa yi yëpp rawatina Baye Laye Ndiaye mii ndax yaakaar naa mooy ki mag ci jataay bi ba pare nekk délégué de marché te suñu Pikine gi nekk moom mu jiitu ko waaye yeneen kuréel yu baree ngi fi ñu ne ñun d'accorduñu ci démarche bi ministre du commerce na tok suñu ministre de tutelle na laccé ñu wax ko wala mu tok ak ñun parce que même pas deux mois ci gannaaw la président de la république recevoir au palais kon xam nañu association délégué de marché ñu détaillkat kat ñi ngi fi kon nañ ñu wo ñu tok waxtaan li ñu bëgg ñu waxtaane ko ñun nasandoo ko ñun nocc ko ñun ndax kat bi mënta wañu mukk te goro susi bi wut wa lool daal la bëgg moy suñu kàddu tay moy suñu kàddu ëlëk ñi ngi interpeller direct suñu ministre de commerce muy muy euh, Abdou Karim Fofana di ko wax ni ko ndaje ma la muy am am solo buñ ci bokkoon ci lay ëpp solo loo xam ne nag bu amee rafet bu amul ñaaw ñun ñoo yilif suñuy marché lépp lu ñu fay def wala ñu di ko fa wax nañu jaar ci délégué yi ndax buntu marché mooy délégué bi kenn mënta wax ci seen tour wala nga def seen tur ñaar fukki délégué ak juróom a ngi nii toog ak ay représentant délégué ak ay présidente des femmes ñi ngi nii toog ñu daje ci département Pikine ci seesu pikin di naqarlu lii di wax ne nag ñu ngi koy wax ne ko dara paaseegul nañu toog waxtaan ñu boole ñu ci ni ñu def ñuy xàccandoo di dóorandoo mais kenn mënta weñ suñu loxo ci loo xamante ni waxtaanuñu ci délégué marché Seng Seng ah, département de Pikine kàddu gi ma ci yëkkati daanaka li ma bëgg a wax lépp góor ñi wax nañu ko ndax coono doomu aadama yi rek moo nu tax a jóg ndax sonn nañu jigéen ñi sonn nañ góor ñi sonn nañ ndax yokk boo xamee ni xamu fu yokk ba jëm ak fu muy xëyee fu muy fu muy teere ndax yokk bii ñuy yokk def nañ ko waaye nag nun jigéen ñi ak góor ñi nga xam ne ñooy joxe ci la gën a métti ndax góor gi kat lim am rek la lay jox yow jigéen yi nga bu sab si siw ñëw marché boo dikkee loolaal ñu ne yokk nañ ko loolaal ñu ne yokk nañ ko yokk bu ñu yokk tey boo liggéey ñu ko ñuy ñaan président ne ko li góor ñi wax nañu wàññi euh, euh, euh, kii bi fare yi taxe bu ñu wàññee taxe yi wayefal ko lii tey jii muy yëkkati di ko dugal ci réew mi bu ko dugalee ci dund bi nun danañ ci man a jot waaye nag sonn nañ